novembre ba le 9 janvier moom la ñu tere li nga xamante ne moom la ñu dépee propagande donc bu fekkee ne affiche yi gis nañu ko mu jur convocation mais li ci topp également trouble à l'ordre public est-ce que du tey xel euh, ci ñi nga xamante ne à chaque fois dañuy jàpp ne pouvoir dafay bëgg nëgg sërëx boo xam ne daf koy dalal opposition bi euh, ba du ñu mën a xëy na noyyi ba mën a def li nga xamante ne euh, mooy wax ndaw yu ñu inscrire pour ko ñu mën a voter ci élection yi wax nga ne trouble à l'ordre public mhm. jamono ji trouble à l'ordre public mooy suukar amatul trouble à l'ordre public mooy nit ñi am na ñuy nelaw ci ndox. trouble à l'ordre public mooy saaku ceeb vingt deux mille lay jar. trouble à l'ordre public location baa ngi ñuy rey loolu mooy trouble à l'ordre public parce que l'ordre public la quiétude dund quoi ñun loolu mooy suñu yëf parce que pour man yaa ko waxal sa bopp sànq. Antoine Diome ndegam mot na li mu doon. il a le sabre. que le régime a utilisé pour sabrer des opposants exemple Karim Meïssa Wade donc Antoine Diome lii ñu ko jox jomb ko dañ ko féliciter na ko bravo au contraire ci dëkk bi la ñu gis ay agent ministère de l'intérieur toog ne sénégalais yow doo sénégalais doo fi voté loolu moo fi am le vrai débat dañuy tëgg wëndeel nii le général ñaa yàlla na ko yàlla yërëm il a été un artisan le général Niang pour ñu am une alternance mais pour ñu am une alternance Wade a joué le jeu mais à un moment donné Abdou Diouf a aussi mis les condition de cela. Mm -hmm. assise nationale yi lan lañ doon wax. on a créé commission nationale de réforme des institutions ñu jox Amadou Makhtar Mbow avec un budget de 700 millions. 700 millions pour réfléchir faire des documents. après nga dem musée bi ñu def photo Amadou Makhtar Mbow bo nañu célébrer 100 ans la meilleure célébration c'était ñu appliquer lii nga xam ni mooy seeni réforme absolument donc ici na me parlez pas d'article ou de loi ici les lois sont faites pour être contournées pour être tordues y a rien d'autre le vrai débat mooy sénégalais dañu war a bindu am na ñoo xam ni xamuñu nu ñuy bindoo man mënu ma la ñaata ni damay woo la laa war a bindoo wax nga dëgg. parce que am na ku am carte d'identité bu ñu bind si kaw. ne peut pas voter ne parce que mm-hmm. tout simplement bi muy am carte. di dem wuti carte d'identité jamono boobu liste électorale yi ubbi ko moom la war a yóbbu loolu moo war parti yëpp. sensibilisation boobu moo war Pastef moo war Bougane moo war PDS tous les acteurs mais aussi Bougane est-ce que teg na ko ci conditions yi mu ko war a teg. parce que Bougane aussi dafa am ay moyens am ay panneaux publicitaires am bu ko neexee mu dem def ci affiche est-ce que affiche bi moom bi ko def ndegam war na koo def loolu la ñu waroon xool man ma doon xalaat loolu ma xëy ma gis texte bi quand je vois le texte ancien apprenti juriste lu may njëkk xool mooy lan lañ visé ban champ juridique lañ war a visé je pensais code électoral lañu visé gisuma si code électoral ma ñëw ñu indi ma ay yeneen loi ma xam ni kon gars yi dañoo war loi gisuñu loi ñu dem loqati benn loi pour taf ko ci dégg nga wax ci mhm. maanaam moom da leen ci war a remercier parce que ils ont été son directeur de campagne comme ils l'ont fait Ousmane Sonko Macky Sall moo nekkoon son directeur de campagne moo ko rajee mu dugg assemblée. moo nekk ni L 31 du 7 du 9 décembre au 7 janvier muy 30 jours pour la propagande bi nga xamante ne ñi ko doon wax. sànq mais xam nga quand on parle de propagande dans ce pays. moo grand frère Racine Talla ma koy nuyu au passage. donc la durée a été bien précisée. waaw moo tax may nuyu sama grand frère Racine Talla ma koy nuyu la RTS qu'est-ce qu'elle fait à part de la propagande dites-moi du matin au soir. On, devrait avoir des capsules. yuy pour dire aux Sénégalais nii la ñuy voté nii la ñuy bindoo wax en pulaar en soose en mandeng. l'autre vérité mooy sur les primo-votants je ne suis pas là pour des chiffres. parce que loolu moom duma ci dugg mais tey on a fait une volonté sciemment bu ñu teg pour que jeune bi mu bind mu nekk jafe-jafe cinq jours bu ko bindee ci liste Sénégal carte d'identité moo fi doom bu góor. Mhm. booy yi bal billaay 4 heures du matin la ñuy yeew pour dem rang police. boo leen tegee lool distance boobu diggante ban capacité de production la am d' autant plus que Omar Faye sax mu wax ko carte yoo xam ne sénégalais ay orphelins lañ amuñu papa amuñu yaay. oui ak dilu carte d'identité yi. Mhm. ay milliards ñu def ci ay carte d'identité régime bu ñëw indi say carte d'identité lépp rek coow fichier électoral la lu ñu war a maîtriser mais mhm. balaa ngay dem euh, dafa am lu mu wax ma buggoon ci àddu parce que fan yëpp mu ngi def actualité dama dëkk ci gox bu ñuy wax département de Philippe nekk conseil départemental nekk conseil municipal depuis 2014 il se trouve que li ngay wax nii dafa am waaye domicile ki koy joxe mooy chef de quartier bi moo lay identifier ni dëkk nga fii doomu diw nga wala fii nga luwe wala sancaan nga ba ñu xam ne dëkk nga ca gox ba nga am certificat domicile boobu domicile ak résidence sax du benn du point de vue juridique mhm. la résidence boo koy am une présence physique de l'individu mais à Pikine fi ma dëkk Pikine Nord on a ay coow rajo ak presse di si wax mais li fa am mooy benn responsable politique lu ma tudd turam sax mën naa ko wax Pawlish Gueye laa koy tuddee parce que pour man yenn comédie politique la dem dajale ay carte lu mot dix ba vingt ñëw ne nañ ko defal vingt résidence buñ ko ko bañalee. fan waaw buñ ko ko bañalee ñu woo presse ne waaw maire bi da bañ na koo joxe léegi seen stratégie mooy saa ñu xëyee na ñuy xëy foofu indi fa coow mbii coow mbaa coow régie envoyé naa leen benn vidéo am ku ñu attaqué dóor ko nàccal ko. tey moment bi may wax ak nii tey yendu ma fi parce que diggante yeeg tribunal yeeg police parce que indi na ay coow. Mhm. gis nga politique affaire u gentleman la. c'est mais balaa nga koy clair baal ma clair ko ba mu clair rek. Mhm. maa yor clair gi tey waaw parce que da ngay nekk responsable. Mhm. nga dëkk benn gox mu leer la ni gox boobu amuloo fa base. léegi yow da ngay dem nga loqati kenn ku dëkk Malika sa ñaari nga am Kër Mbay Fall sa benn doom bàjjen bu nekk fële nga bëgg leen indi résidence pour fu ñu résider élection locale c'est une question d'élection de proximité où les gens s'identifient où les gens se connaissent. Mhm. yaa ngi wax léegi-léegi yow maa lay dégg nga naan mbaaw du ngeen nangu ko jóge ooka jeere mu ñëw di fa voté ñun aussi à Pikine Nord du ñu nangu ko dëkkul Pikine Nord mu ñëw di fa voté alors loolu leer na et le vrai yi nga xam toog nañ fi sept ans respecté wuñ calendrier électoral. d'accord seen liggéey xam nga la war a doon. ñëw wax nit ñi lii mooy sunu bilan. lii leen fi fekk lii ngeen ñu jox. yow mi nekk un prétendant da ngay ñëw nga ne lii la gis lii laa bëgg a def. d'accord on attaque l'autre point merci beaucoup mais on attaque xam na ne élection locale euh, jamono ji nga xamante ne ñu ngi koy wax mën nañu wax ne euh, ñu ngi ci jamonoy manœuvre euh, ci diggante coalition bi ndax coalition boo xamante ne également ñu ngi wax ne mi ngi ci yoonu ko juddu diggante ñeent ñu dippee les quatre grands euh, ñoom noonu la ñu dippee également seen bopp mën nañu ko dippee PASTEF le parti démocratique sénégalais PUR ak ñi nga xamante ne ñooy Manko taxawu Dakar alors euh, monsieur Sarré euh, bu ñu ñëwee ci coalition boobu nan ngeen mën a taxawalee une coalition entre vous quatre wara waxtaan ñenn ñi nga xam ne dañu fare ci kujje politique yi sax jàpp ne dangeen leen ci beddi non mënuñu ko jëlee noonu parce que Euh, déjà tuddeewuñu suñu bopp les quatre grands. c'est pas xaw ma boobu fan nga ko jëlee non bu suñu tuddee suñu bopp les quatre grands. peut-être en terme de participation des élections mais li fi may njëkk tàmbalee mooy d'abord euh, coalition bi xëy na sax bëgguñu ko woon